su ma dalee ci benn kaañ xam laay njëkk damay jëndi vaar quoi yor ko di ko andi jàkkaarloo comme sax bu yéen dawee rek damay bés bouton poub rek mu ma bañ a répété waat pour pour mm-hmm. Mm-hmm. est-ce que gis ngeen benn at boo xamante ne Guet Ndar amul problème benn at rek ci dernier dix dernières années yi par exemple est que mos ngeen toog benn at bu Guet Ndar amul problème euh, pour euh, stade bi c'était une circonstance Mbour bi c'est pas c'est pas des choses récurrentes mais Guet Ndar c'est une constante changé. Hmm. Euh, je commence par condamner déjà violence bi man lépp lu ñuy régler par violence man euh, bokk ma ci. d'accord d'accord ma ci. Euh, VAR bi la moo tax ma wax la ko dama ne si sur mes principes par exemple àtte bor fay la yëfu fu su sa hmm. la dernière euh, fois bi ñu amee problème ak problème gëndaar bi c'était des dañu rayoon ay nit quoi la dernière fois bi ñu koy tablé fii c'était ça y a eu des morts. Hmm. tirer leen parce que day ñëw seen territoire moi j'avais dit yëfu jàmbur bàyyi ko c'est ma philosophie et je reste constant par rapport à ça mais au-delà des insuffisances ak yenn errements yi am euh, je crois que problème Guet Ndar lu Guet Ndar moo koy réglé du waa Guet Ndar ñoo koy réglé autorité sénégalaise ñoo ko war a mm-hmm. réglé parce que dama li tax ma ma gëm ne mën na nekk euh, problème gaz bi ak pétrole bi dafa am lu ñu bokk ak Mauritanie mais les chefs d'État se sont rencontrés ba léegi déglu leen benn problème bu si buñ koy sax yaakaar ils se sont retrouvés ils ont ils se sont entendus président Macky Sall ak Aziz avant muy jógee si pouvoir bi je ne pense pas que ñu yaakaar na xëy na pétrole aussi important que des vies je ne le pense pas mais quand le problème s'est posé ñaari présidents yi ñoo gisee seen bopp ñoom ñoo réglé problème bi problème Guet Ndar aussi noonu la war a demee c'est-à-dire ce sont les chefs d'État les vrais ñoo ko mën a régler mais gis nga ce qu'on fait à tour de table chacun donne tout le monde va la violence mais le problème reste entier bougé wul changé wul on parle d'accalmie mais le problème n'est pas résolu il n'est pas résolu c'est quoi la solution amuñu ko mm. on va se recon recontacter concerter waat déwén encore. di nga digat beneen problème donc position Birima qui dit que boo moytuwul du fi mujj. non non non seulement du fi mujj mais j'ai commencé par dire que est que toog nga benn at c'est une récurrence a dépasser euh, juste une différence bi mooy. problème entre pêcheur Guet Ndar ak. Mauritanie c'est vraiment. interne mais c'est entre président Macky ak président bu Mauritanie. Hmm. problème bi kay j'ai pas dit ko réglé non après ah comprendre dama président yi le problème est tellement sérieux hmm. chaque année mu génn si beneen facette rek muy génn c'est-à-dire que c'est les c'est les. Euh, déclenchement rek. Ah waaw mooy rek. mais c'est la même <laughs> zone. la même personne c'est la même zone. je comprends tellement li ñu rek mooy source bi mooy lan moo enflammé. Eh, eh, moo tax c'est un problème tellement profond. Mhm. que du Guet Ndar moo koy réglé du mhm. ministre moo koy réglé. Mhm. le ministre est pour accomplir wala appliquer. alors da eh, non non dama ne. l'histoire du pétrole. Papis nand naa la de. nand ba nga xam ni yow laay jàppale ak fi ma jëm. gis nga problème pétrole bi <laughs> dañoo toog ah. président Macky dafa toog ak Aziz ñu wax si waxu pétrole bi. mais problème mu la bu ñu toogee wax ko mais y a des solutions. Mamadou Niang euh, Ngom Niang comme fekkee nga waxtaan bi sa gis-gis très rapidement ci. waaw su ma gis-gis mooy d'abord condamner violence bi comme ni ko ñëpp waxee du image yu honoré képp koo xam ne bëgg nga Sénégal mel ni mu war a mel donc euh, je pense que ñoom ñu fa dëkk ils ont commencé par regretter ces incidents là. Mm-hmm. donc euh, mun nañ leen ko nangul concéder leen ko hmm. mais li Papis wax rek moom lay wax mooy que ne comme c'est un fait buy ñëw tous les ans aussi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di administrer ñoom ñoo leen fa nekkal hmm. ñoom ñoo war a teg problème yi si fi ñu ko war a teg hmm. parce que ay kilifa lañ ñu jiital leen donc ñu la jiitalee aussi da nga war a jëfe li nga xam ne moom lañ la jox teg ko fi nga ko war a teg et mettre l'État devant ses responsabilités. Mm-hmm. mais mënuñ di agir cas par cas. parce mm-hmm. que benn dëkk rek newu fii benn sénégalais rek newu fii état def fi ne war a régler problème yi sénégalais yëpp donc on doit pas être là à dire que ne waxoon nañ ko waxuñu ko woon l'état ne peut pas gérer cas par cas l'état gère de façon générale et un cas bu ñëwee ñu poser ko te jàpp naa ne le ministre Alioune Ndoye def na ci lim ci war a def yëpp ak gouvernement Sénégal et on les félicite au passage. Euh, fi nga daanelee ak Papis dama d'accord ak yéen ba nga xam ni Macoumba yow laay interpeller licence de pêche yi rek nekkul problème mu Guet Ndar effectivement seen dundin pour mu gën a ñoŋ mm-hmm. euh, problème mu avancé de la mer mi ngi fa dragage fleuve bi buñ koy euh, euh, buñ koy wax mooy bël bi tamit problème mu bël bi su ma juumul en moyen c'est vingt à vingt cinq pêcheurs yu ci ñàkk seen bakkan chaque année géej gi mi ngi nangu seen kër yi donc bëri na ay problème yoo xam ni effectivement aussi je pense qu'il faut que ñu teg ko si table bi régler ko ce ne sont pas seulement bu ñuy xool peut-être licence de pêche yi ñoo cristalliser frustration waa Ndar mm-hmm. yoo xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy dund. waaw xam nga xam nga mooy comme comme li nga wax. gendar si guddi yuñ toll. askan mm. lañu woo xam ñoom dañuy dund lu metti ku nu ko waxul nag doo ko xam boo demee booru géej gi amatul mm. tefesu géej mm. géej gi tout le temps ma ñuy nangu seen kër yi beres bi pour nu mën fi jaar pour wuti lu nu dundee rek danse la pour nu mën fa jaar booy dem dangay ngay jéggi siraat mm-hmm. booy dellu si da ngay jéggi siraat moom lañ dëkkee moom chaque at gis nga li dee dem na ba rey quatre cent dix-huite mm-hmm. personnes. ñu ngi ci bilan. te chaque at chaque at état ñëw am lu mu tegal loo xam nuy dunde yaakaar duñ ko gis. Mm-hmm. xam nga ñu mel noonu bu ñuy continuer di dund si yooyu. Mm-hmm. mën na dem ba askanu yëpp xam nga ànd mer ba fut moo tax comme li buuba wax état Sénégal problème mu ndar il faut que mu jël ko au sérieux. mu xool problème bi fi mu nekk dëgg dëgg dëgg dëgg ñun licence de pêche yi. problème Mauritanie la concerné. Hmm. dëkkam la da koy neex mu may la neexu la du la may. Hmm. mais ñun li nu am pour def ko. Hmm. pour avant tout li si jëkk pour nu man fi jaar muy beres bi état Sénégal def si war jublu. mu defaral nu ko xool nan nanuy def. ak Macron bi mu fi ñëwee ni wax waxu miiru booru géej gi. waaw justement Macron amoon na ay diggé yu ñu def bi mu fa ñëwee. amagul dara loo xam ni kii na ci. amag yooyu noonu amagul dara loo xamante nii wax dëgg yàlla gis. nañu lu lu ngeen ci gis. Hmm. gis nañu ko si si temps wu temps yële passé si temps wu Umar Gueye si la ñëwoon tegal nu promesse boobu daal ni comme balisage bël bi dina commencé boobu ba léegi tamit dañu siy dunda yaakaar rek mais gisuñu si dara te bël boobu état bi lu mu war man def dafa waroon taxaw xam nga mu defar yooyu nag problème la yoo xam ne day tourner si biir quartier bi yooyu état Sénégal daf si war jublu xool nan lay def xam nga ba defar. Hmm. lii am nii nag comme ni ko ñëpp a waxee rek neexul kenn. Hmm. man boog neexu ma te xam naa ni kuy nit te amee sa xel neexu la ni mu amee camp yu oto yi yàqu noonu la ame ay gaal yàqu am na borom gaal goo xam liggéeyul Mauritanie yàlla xam na fan yi nañ ko fay si gaalam gi di mooy gaal gi nuy turne gi ko tourné wan si nañ ko si fay douze millions mu ni jaayul mooy projet kii yooyu gis nga lu mat juróom benn gaal tamit yàqu na kon ay du yem si bopp borom kenn digalu ko kenn mais ndar mm. am na ay jafe-jafe yoo xam ne état bi war na xool nan lay def mm-hmm. pour mën jóg saafara problème mu ndax. defe naa lim naa ko léegi yow. Mhm. pour être concret tamit commission bi yaa ko jund sànq dinaa ñëwaat yow léegi. Mhm. Birima donc pour yow commission ba nañ ko tegee fële lépp ci problème bi ñoom la. Mhm. waaw bu ñu leen ci dindee ñu de ñu réglé ko naan kon. waaw mooy commission bi mu wax ci affaire Birima may ma xam nga état Sénégal. ñoom toujours dañuy gis loo xam ni war si duut baaraam dañ koy bay bayal te loolu ëllëg moo leen di indil problème. commission boobu. 2002. nan fi nekkoon ba léegi. fal seen benn kuréel di defuñu AG baaruwul. c'est ce qu'il avait dit. toujours nag toujours nag état buy wax ak ñoom si licence yi ñoom lay waxal te état bi dañ leen nit ñi askan wi. dañ leen jéppi man mm-hmm. nu wax nu dégg man nu wax nu gis. Mm-hmm. kon nag ñu mel noonu. donc seen représentativité. justement moo nekk moo nekk en cause. looloo looloo tax nag sànq ma la looloo tax sànq nag ma la doon naan Alioune Ndoye man dama koy yërëm. Mm-hmm. parce que ndaje yi mu def yëpp man dama si dem te dama dégg bu baax li mu wax. kon nag comme yow ñemeetoo sa askan. Mhm. parce que ñëpp jéppi nañ la amoo droit xam nga di dem si kenn di ko wax te état bi yow laa waxal kon message état bi du jàll. Mhm. lii dafa mënoon ñàkk ñoom bu ñu génnoon taxaw communiquer wax ak population bi population bi yëpp toog lii day ñàkk mais nit ñi moo la ñooñ def loolu. dañu xamul li xew lan la liñ si am naari ñëw nañu yóbbuwaat nañ licence. am na lu si am wóol ñu ñëw toog xam nga wax leen li xew mais état kii commission jàmmalaay boobu mhm. commission boobu si wàllu boppam noo war tekki leen dombal tànk parce que lii am nii mhm. c'est responsabilité la allez ma oui moo xam nga gert Ndar loo leen contre contre seede leen lii mhm. ñaar yi mi ngi ci ñoom nangu nañoo liggéey am nañu fulla dama ne loo leen lu xew ñaar yi ñu ngi ci ñoom nangu nañoo liggéey am nañu full commission bu leen fa nekkal. Mhm. buñ ci àndu def 24 heures. ndax ñàkk bu fay daa man mënuma d'accord commission nekk fa pendant des années. di wax à l'heure non ñoom d'accord ci mu ko ne di wax loolu man mënu ko ah, enfin il faut ma gën a. waaw man loolu mënu ko parce que. je connais je connais à peu près je connais à peu quand même l'esprit. genn du du du ñooy du ñooy forcé. Mhm. du ñooy wi ñaar rek neen def leen nangam ñu def ko loolu état sax mënu ko waxuma nag ku fa dëkk te ñoom ñu fa dëkk ñoo xam nga la mooy différence gendar ak yenn quartier populaire yi mm. par exemple quartier populaire la mm-hmm. mais quartier la boo xam ne kii daa jóge fii kii jóge fii kii jóge fii kii bi kii jóge fii ñoo dëkk fi or get ndar quartier voilà ëpp ëpp na deux cent ans li ma maa doon xam fi ma mm. mais get ndar ndar mm-hmm. donc quartier boo xam ne c' est c' est un peu isolé limité ndax mu wër ko ñëpp ay mbokk lañ kër gu ne jël nga fii jabar kii jël fii jabar dafa nekk rek famille. Mm-hmm. boo laalee benn. Oh, laal ci buntu laal nga ñëpp bu ñuy dem bu ñuy dem hydrobase bu egsee gem da danga naan cot dawal ndànk ndax xam nga ne boo fi fiiree nit doo ñib dañ lay rey. non dama la xam naa ko li ma wax waa Ndar may dëgg. kenn yow bu leen ah. donc mënuma gëm ni am na ñu leen di représenté te deuxièmement bu la ki leen représenté fayiree. c'est l'état qui paie c'est le peuple sénégalais qui mm. je pense que li ñu war a def du loolu mooy ñoom man jàpp naa ne même histoire bii gi tax ma ne du fi yem mm-hmm. histoire bi ñu def nii daf leen arrangé wu sax ñoom mm. en réalité ça va retourner mm. ci ci biir Guet Ndar comment naar nga baal ma quoi naar xam nga naar wax naa émission wax naa fii émission. fii fii laa émission fii. ne leen napp jën man bi ñu reyee bi ñu reyee fii bi ñu reyee fii waa Gendar. man ngeen ma seet dama remonté fii. dama déconné dama mer ànd ak waa Gendar jàppale leen. parce que mënu ma gëm man mënu ma teel a ma gëm ngay jàpp jën ñu rey jën bopp ruu jën mun remplacer ruu doomu aadama quand naar yi teguñu fenn rey Sénégal yi. loolu laa fii mais bu ñu defee lii. ba ñu xam ni li la licence de pêche di jëriñ Sénégal non seulement les naar vont augmenter les prix parce que xam nañ seen int xam nañ ni maintenant c'est c'est à prendre à laisser. Mhm. danañ leen neexal au parce que affaire état la mais bu ñu demee ba ci biir dañ yokk dañ yokk dañ yokk indemnité dañ leen gën a coincé te ëllëg bu ñu tiiree kenn ci ñoom lan ngay wax fi mu ne moo tax ma histoire bi ça va retourner même ça va retourner contre eux. te li ma wax nii le temps est li ma bëggoon wax mooy euh, kii DER. Euh, am na ci loo xamante ni pour man c'est benn benn système la boo xamante ni xam nga boo jëlee depuis 1960 ñaata ministre de la pêche. ñoo fi jaar ñoo fi jaar. le problème reste intact c'est-à-dire bu ñu la falee c'est pour régler des problème mais bu fekkee ne dañ la fal nga ñëw tu const tu ne fais que constater les problèmes finalement nañu bàyyi fale bi parce que àdduna bi léegi dafa am lu ci xew lu yéeme. mooy euh, te Birima euh, wax na ko léegi mooy crise de représentativité bi nga xamante ni dafa am c'est-à-dire que tey li gën a jafe ci àdduna bi mooy wóolu nit jox ko sa kàddu hmm. mu dem pour di la wax